Uh, halaan bikum ñaar fukki jàngalekat korona bi rey na leen Sénégal allah réew mi yéen kaay ñu ko xamal turbine yéen kaay dëggal ko mel ni ku naan buñ ci waxut fa leen di jeexal de matuwaay cet gi ñu waxoon ci école yi dara lañ ca defut ba tax jàngalekat yi ñu ngay tëkku ne boo moytuwut fa ñoo nar a amal ay geraw si du quotidien na ko yow xanaa yëgooli xew waa kisam si ñooñu fa ñuy geraw ñaari fan ndax ñu ne nguur gi ba léegi fayul leen seen indemnité ndàmpaayu bag bu Dakar nag ñoom leen fas yéen a nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne tey ci àllarba ji ci la ñàkk vaccin corona bi di yegg si Sénégal ñaar téeméeri junnay doos yu bàyyi koo Chine critique yéene kaay na waaye ñàkk chinois yooyu 79 pour cent la am ci efficacité nekkul pour cent la baax de te xam nga ñaata lañ ko jëndee lu ëpp ñaari milliards suñu xaalis yéene kaay bi mel ni ku naan waaye nañ gaaw rek ndax lu ko mooy corona bi fa ñuy jeexal juróom na ko fi démb ak benn fukk ak ñett ñu nekk ci diggante dund ak dee téeméer ak fanweer wér nañu mu mel ni yëf yaa ngi wàññeeku libération na ko yow corona bi fa wër ndoom ba Sénégal nga naan lan fi mu toll ni mbooleem barabu fajukaay yi xam nañ corona ci diiwaan yëpp nag ñi fi corona bi jàpp jamono ji ñu leen di faj juróomi téeméeri junne yu manqué tuuti la lim fi rayegum nag lépp-lépp juróom-ñaar téeméeri doomu aadama la ak juróom benn fukk nay leer la leer nañ ba mel ni janttu su baar mooy ne Ousmane Sonko démb amal na ndaje ak parti yi koy jàppale ca iyaam les éco yéen kaay ne di wax seen ndaje ma la ca tukkee seetal Aïda Mbodj moom la Ousmane Sonko tànn mu war koo défendre ca commission ad hoc ba yéen a kaay bi na loolu nag fay tegtal ne Ousmane Sonko dina wuy ji commission ad bu assemblée nationale l'observateur na ko gis nga assemblée boobu seen plainte bañ wax naan contre x lañ ca def alaqam déedéet turu Ousmane Sonko bu leer nañ moo ca nekk li nekk jamono jii ci njaboot sonk gi mooy fañ leen di teg loxo takk der yi fañ leen di lukkat di leen rëbb di leen raatale waa Pastef yi nag ak waa frappe yi fañ koo ñaawle na du dëgg du yoon vox populi na man kay fay lan moo tax waa kaay bi ne parce que ñoom waa Sonko yi fa ñoo xam ay message yoo xam ne fañ ci doon tëkku yenn ci kilifa réew mi na fañ leen di rey takk der yi déglu audio naka noona ñuy fexal takk der yi laas yéene kaay naka ma yokkal la ci Mahmoud Saleh pelante bi mu def waa Sonko yi moo yokk ci xar mi karaw ñu ne déetawaay am nañuy ruu mandaat ne waa Sonko yi fa ñoo yor ay kaddu wala ay image ci njiit réew Macky te ñu ngi tëkku ne fañ ko nar a génnee te loolu mën naa yëngal réew mi de libération ne jabaru Souley Diop ba takk dere teg loxo fañ koy laaj waaye moom silance la laal maanaam waxut fana tekk ki wax nag di ab attekat waaye bëggu turam feeñ mu ngi ci wal fajir yéen kaay yow seetal attekat bi nee na gis nga mbiru usmaan Sonko yi amul benn attekat boo xam ne bu sérieux nga maanaam buy doxal yoon daal ci gàttal bu ñemee jël Ousmane Sonko naan yaa ngi koy tëj kaso foo koy teg ka teg ay kàddoom ci direct news ci mbiru usmaan Sonko yi mooy Moustapha Diakhaté yow seetal nee na amul benn fajkat médecin bu digal Ousmane Sonko na ko demal ci salon ñu lay maase ngir faju moo fa demal boppam ci bànneexu boppam maanaam moom la neex te yëf yi du mbiru partem bi déedéet moom ci boppam la kon lan moo tax muy xoo ay militant am ñu yëngal réew mi aji saar nag tumuranke sonn rek ko yóbbee lii lii yéene kaay na ko Ousmane Sonko kay ñetti yëf lañ ko mën a yeddee yaaw seetal bi ci njëkk lan moo tax mu tànn xale bu jigéen bi ngir mu koy maase bañ dem ci ñi xam ne faj feebaru Sonko bi mooy seen liggéey ak lan moo tax mu oo ay ñu yëngal réew mi ak li tax mu jël yëf def ko mbiru politique avocat yi Ousmane Sonko yi ci exclusif yéene kaay mel ni ku leen di tontu na yéen daal faa foog na xamuloon li xew gis nga yëf yii kompaloo la ñi ko def nag fa ñoo desee xarañ niñ ko defee baaxut ay cuuna lañ te ñoo ñu def ko bi ñu koy def Macky Sall yëgut ko te bokkut ci woon waaye nag lu neex Macky moo taxoon ñu kompaloo Sonko léegi nag moom Macky moom rek moo mën a tax yëf yi ñu dakkal ko jàpp gi ñu jàpp nag farandaru Sonko yi ci jamono jii du dara lu dul bëgg leen a xupp napp leen ragal loo leen te loolu du jàll dee te mooy yéen a kaay di ñu xamal ne soldat ginnaaw buñ songee attaqué rebelle ya MFDC yi jël nañ ca ñoom ay këyit document yoo xam ne ay mbóot secret yu garaaw ña nga ca l'évidence yéen a kaay moom di ñu xamal sëriñ Mouhamadou Mansour Niass jébbal nañu ko boromam ca digoo xarmel yu Medina Baay ki démb mbooloo mu bari ñoo ko gunge ca këram gu mujj kilifay xadara ba Sénégal ba bitim réew tàggat yaram Liverpool mbuqi na Leipzig ñaari bal ci dara Sadio dugal na stade yéen a kaay ñu ko xamal waaye Barcelone <laughs> hee démb de gis na bidiw bëccëg Paris moo ko fekk biir dëkkam fa koo toroxal fa ko doon jàngal football fa koo di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg dee ñeenti bal dal ci benn tic tac carax-carax bii ya mel ni taw Barça jommi na leen wër na fori nañ new de qualifié moom duñ ko def la mu def moom benn paa bu xam juróom-ñett fukki at mooy fa daanu ci ab bassin daal di lab ca ndox ma faatu ñàkk kanam allah laas yéen a kaay ñu ko xamal yëf yaa nga amee ca yëmbal l'observateur moom di ñu xamal na sénégalais yi ni ñuy jëfandikoo réseau sociaux yi baaxut de internet bi facebook ak ñoom seen ah yow fa ñuy saaga ndey fa ñuy xaste fa ñuy wax wax ju ñaaw fa ñuy yàq deru nit ñi di wane seen photo nag ñaar ba juróomi atu kasa lañ lay tëj bu ko defee xay xenu la ki xay nar a xenu dëgg nag mooy xale bu jigéen bu ñuy wax Faatu Njaay fañ koo xëmbal mu am doom mu rey doom ja dugal ko ci ab walis tëj ko juróomi atu kaso la nar a tëdd les écoles yéen a kaay ñu ko xamal l'observateur na ko xaaral ma wax la xale bu jigéen bu def lu gën a garaaw loolu donte niroo nañ moom daal faram wi fa koo xëmbal mu am doom yaayam dimbale ko mu rey doom ja ba pare gas ko suul aay réew mi a kaay na ko ma yokkal la ci moom bu ba muy suul doom ja mook faram wi nga xam ne moo ko ëmbal ñoo ko def ñoom ñaar yaayu xale bu yi man de xaw ma yéen ñett ku ci gën a bon ak ku ci gën a dof néegu tooxi doona ya bunt ba ubbeeku na benn waay daal moo ñëw ñaan baayam lu mu jëndee ndékki xaalis baayam na ko xaw ma xam nga nu mu defam fa ren di baay ja fa xet allah les éco yéen a kaay ñu ko xamal ki reen baay ji nag ndax ndékki jóob la sant li ca gën a garaaw nag mooy baay ja imaamu ratib la ay